di def euh, ginnaaw bu ñu leen fa entendre ba noppi ca division des investigations criminelles ci lañ jël dogal bu ni mel euh, ñu fàtte ne nag avocat ñeneen ñi nga xam ne ñoo di ay naataangoom di ñu fare ci kuje gi ñoom la ñuy mooy ñu bàyyi ko ndax jàpp nañ ne euh, dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw yoon di leen xam ngir ñu mën leen a jàpp mais aussi waroon nañoo jaar ci lever son immunité parlementaire démb ñu fàttali ne ci lañ ko bëggoon teg yoxo ginnaaw bëggoon a jàpp ci la seeni naataango député wax ak ñi nga xam ne euh, ñoo di yenn ci ay njiit waaye aussi commissaire bi nga xam ne moo fa nekkoon ngir ñu bàyyi leen tey euh, ki la di biram Souleye sax moom moo jëloon engagement wax que ni tey jii dinañ présenté wu devant les enquêteurs ba sax démb bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay député nee nañu ca këram euh, lañ daal di demoon ñoom ngir rek bu bët setee ñu mën a dem wuy ji àttekat bi comme ni ñu koy waxee waaye nag tey ji bañ wuy jee ci lañ leen daal di yóbbu ci li nga xam ne moo di garde à vue alors Issa dama bëggoon laajte rek ba xam ñoom ils avaient annoncé ñoom it euh, dañuy déposer plainte que Euh, finalement ils l'ont fait les deux députés. oui déposé nañu plainte ñoom itam contre euh, ki nga xam ne moo di Amy Ndiaye euh, ngir ay injures ak propos yoo xam ne yëkkati na ko ci seen kaw ak ci kaw ñi nga xam ne ñoo di seen moo di seen leader. mais ñoom itam li ñu leen di toppee moo di coups et blessures volontaires ak association de malfaiteurs mu di plainte contre plainte yoo xam ne moo am ci mbir mi ginnaaw bi ministère de la ministre de la justice doon jaar ci assemblée nationale te ñu mujjee woon ci jàppante xeex ak ki la di Amy Ndiaye di maire bu bi parce que les faits c'était très flagrant ce qui s'est passé. Euh, waaw xam nga li ñuy njëkk a déplorer d'abord mooy scène bu ñu assister démb à l'Assemblée nationale euh, xam nga bu nekkee ay député lañu am nañu une certaine représentativité parce que bu ñu demee assemblée nationale askan wi lañ fa teewal yaakaar naa ne ñooñu li gën a responsable mooy nga jox leen convocation ne leen wuy si leen jour tel heure tel mhm. donc yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defoon. Euh, scène bu ñu gis démb assemblée nationale. député yi poursuite euh, tout à fait député yi génn ngay gis euh, vraiment ab arsenal boo xamante ne ni mobiliser nañ ko foofu ci guddi gi ñu ne dañuy ñëw pour teg loxo député bi je pense que ne loolu lu lu ñuy déplorer la nekkul nag lu bees parce que même Pape Alé li ñu fi doon li ñu doon déplorer temps yële si ginnaaw mooy méthode d' arrestation bi nga xamante ni un responsable mun nga ko jox convocation. mu wuyu si la nga bàyyi ko ba mu génn eh, di doxe ay soxlaam nga dab ko ci mbedd mi këppatal ko jàpp ko je pense que loolu c'est pas responsable te député yi wane nañ tey bi ñu wuyu jee que li xewoon démb amuloon eh, euh, mënoon na ñàkk parce que tey de manière très responsable kenn jëlewu ñoom ñoo demal seen bopp wuy ji euh, euh, division des investigations criminelles mm-hmm. te yaakaar naa ne ab député koo xamante ne ni askan bi moo ko fal kooku mënul làqatu kooku mënul réer donc euh, que ñu dem wuy ji par contre ñiy wax ne dañoo war a lever seen immunité parlementaire ba pare doog leen a euh, doog leen a interroger loolu man d'accord ma ci à moins que à moins que mooy comme euh, li ñu tàmmal rek maanaam loo xamante ne nii flagrant délit la ñu ko war a juger comme ce qui s'est passé avec Cheikh Oumar Diagne ñu ne lu mu wax ci ab plateau télévisé la ko waxee loo xamante ni jarul ocunement enquête da da koo wax dañ ko war a dagg laaj ko lan la ci wax ndax moo ko wax et cetera et cetera mais ñu bëgg a jël loolu yóbbu ko instruction Euh, ma jàppoon ca waxtu woowu que injustice la dans ce cas précis bu nekkee ne ñoom dañu juger que député yi li ñu def flagrant délit la te mun nañ ko considérer noonu parce que xew-xew boo xamante ni caméra yëpp dañ ko jël mhm. donc mun nañ ko considérer comme flagrant délit donc bu boobaa soxlawul mhm. ñu lever seen immunité parlementaire maintenant bu ñu leen taxañee nag ba jàpp leen lever wuñ seen immunité parlementaire ba pare ñu ne dañuy yóbbu dossier bi en instruction boobaa <laughs> ñu def loo xamante ni mooy injustice bi ñu dénoncer tout le temps. alors Issa ñu de dañuy dañuy dàkkanteeg temps bi ñu daal dem ci deuxième point suñu waxtaan muy mbirum euh, affaire Sweet Beauté euh, mbirum dossier Adji Sarr Ousmane Sonko gis nañ ñu démb déglu nañu kii di capitaine Touré tey ñu déglu kii di Baye Mbaye MC est-ce que mën nañoo wax ni euh, ñëpp loo xamante ne les avocats de Sonko l'avaient demandé pour ñu auditionner dafa mel ni jamono mi ngi ci tànk boobu. waaw dafa mel ni mi ngi jël weneen yoon nda boo xoolee ñi nga xam ne ñoom lañ ciy déglu début bi nañ di ko réclamer ku mel wax na ko waxati ko waxati ko euh, te taxul woon ñu def ko tey nag ki nga xam ne moo di àttekat bi euh, nga xam ne moom lañ jox dossier bi di Maham Diallo moom muy commencé di déglu ñeneen ñoo xam ne euh, ci la ñu nekk ndax gis nañ sax ki nga xam ne moo di capitaine Touré démb ñu déglu ko tey jii ñu déglu Baye bay Niass moom nag nee na waroon na sax def après déclaration wala point de presse mais finalement daf ko mujjee dàq waaye nag li mu amal moo di ne def na benn déclaration bu ndaw wax ci yoroon jox na ko ki nga xam ne moo di le doyen des juges te moom heure bu ko soxlaa rek mën na daal di teewaat ngir leeral mbir mi ndax euh, moom li mu ci doon wax itam bëri na ci yoo xam ne wax na ko ci ba noppi mais la mu waroon a wax ak juge bi wax na ko ak moom euh, ki la di capitaine euh, ci jot jot ci ay information moo di ne moom itam jàkkaarloo na waaye dafa campé sur sa position selon certaines yoo xam ne moom la moo jot a fuité dans la presse mu mel ni kon dafa nar a jël yeneen yoon mu di ay mhm. piste yoo xam ne ñenn ñi ñi ngi ko doon xaar mais aussi ñenn ñi doon nañ jot que ni duñ fa àgg mais est dinañu dem ba ci ñëpp ñi nga xam ne ñoom la Ousmane Sonko Sonko di cité c' la grande question bi nga xam ne moom la ñuy ndax am na avocat bu ci cité woon mu di maître Dior Diagne ak ki nga xam ne moo di euh, procureur de la république bi fi nekkoon ci ay jamono fii ci Ndakaaru di Serigne Bassirou Gueye lekk léegi mu nekk njiital OFNAC est ce que ñooñu ñëpp <laughs> attekat bi di xam jàlloo dina leen euh, jëli ji alors Pamatar est ce que mën nañu wax ak audition wu euh, Baye Mbaye MC Euh, mun nañoo wax ne moo nekk dernier dénouement wu euh, l'affaire Adji Sarr Ousmane ko parce que ñu bari dañoo doon ne moom bu ñu ko auditionné sax rek ba mu joxe lu mu yore mun nañoo wax ni carte gi daal di leer ñu daal di passer à autre chose. waaw mais euh, lu mu yor à titre information kese la kenn mënu ko kenn mënu ko jël di ko di ko lu mu tudd di ko opposé ak qui que ce soit donc dossier bi en fait ñii li ñuy def nii yëpp information nañuy indi information boobu nag mënul féete kaw preuve. gis nga lii nii yëpp dilatoire la c'est-à-dire ñoom dañuy gëmloo sénégalais yi que def nañu ñëpp ni ñu leen doon dégg ñuy wax ci dossier bi mais après le juge il n'est mm-hmm. yi ay audio mu dem ba mu neex ko ni yi nii ba nga koy jëli ji dafa illicite donc duñ si duñ mm-hmm. na yu bëri yoo xamante ne dañ koy def dañuy gëmloo sénégalais yi que parce qu'en fait dañuy sauver les apparences dañuy gëmloo sénégalais yi que nekk nañ ci yoon parce que ñi ngi nekk di auditionné ñi nga xamante ni ñi ngi doon sàkku ñu woo leen mais bu ñu leen woowee ba pare ban valeur la loolu am loolu mooy question bi en fait te valeur bi mënut a sut li nga xamante ni mooy preuve gis nga ci wàllum crime la ñu nekk crime ay témoignage ak yooyu yëpp mënut a doon loo xamante ni dafay tax ñu tëj nit dafa am loo xamante ni moom nañu soxla mii matériel te chose bu matériel ci affaire viol bi ñuy wax wax nañ ko waxaat ko waxaat ko mooy l'acte boo xamante ni dafay confirmer que ñaar ñi am nañu rapport sexuel déjà et bu amee loolu nga xamante ni mooy firndeel que ni rapport boobu c'était sans sans sans son consentement donc mbir bi yaakaar naa ni euh, dañuy continuer seen dilatoire boobu gëmloo sénégalais yi que ni way def nañu lépp lu ñu waroon def pour que ëllëg bu ñu nee dañuy dem procès képp ku wax ñu ne noono non pourtant li nga xamante ni euh, mooy yoon def na liggéeyam déglu ñu mu waroon déglu def na lu war a mais gëmuma ni ni que dafa nekk dans une volonté de clarification parce que mbir bi yaakaar naa bu ñu nekkoon ci volonté de clarification du génn ci commissariat wala ci euh, section de recherche bi mu nekkoon am na loo xamante ni boo demee ci yenn réew yi euh, bu mel ni tugal ak yooyu bu nit ki ñëwee di plaindre ci benn mbir surtout euh, ci ay affaire de viol bu indiwul li nga xamante ne moom mooy preuve matérielle parce que parfois dafay xaw difficile moom mu indi kàddoom kase kàddoom googu mooy dañ koy dañ koy mettre à rude épreuve examiner xool déjà psychologiquement ci ban état la ne entourage bi nga xamante ne mooy entourage am direct ak fi muy liggéey ñoom ñëpp dañ leen defal ay enquête de moralité pour mën a xam mhm. kooku déjà kàddoom ban valeur la am mhm. crédibilité nit kooku noonu loolu yëpp nag bu amul ñu xëy suba di ñuy wax ay waxu ñi ngi déglu ay ñeneen ak ñeneen sachant que ni amul benn valeur euh, lu dul valeur information man dama jàpp que ni dilatoire kase nga jàpp ne dinañ dem ci seen logique euh, logique gu bi nga di wax mooy dem jusqu'au bout maanaam ab xam ne dina am seen diggante boo xoolee mbir yi ni muy doxee euh, nga engagé ak ñii ñu sant ñu leen waxal li ñuy wax cest à fu ñuy mujj mooy Ousmane Sonko laaj nañ ko tontuwul ñii indi nañu ay wax ñeneen indi nañ ay wax mbir yi leerul kon nañ dem ci àttekat ba mu leeral mbir yi donc ñoom ci seen logique nañu nekk mooy nañ dem ci seen projet public boo xamante ne xale bi mi ngi koy sàkku mhm. alors monsieur Gningue euh, ak li ñu fi dégg l'arrestation des députés du mhm. PUR audition dans l'affaire Ousmane Sonko a gis ça fu toll nii mu doon ni Sénégal kin bi baax la fenn seddul ban jàngat nga ci def waaw danañ ci jàngat waaye danga may may balaa ñu nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo ñu téyel suñu réew mi euh, rawatina ki nga xam ne mooy sëñ mun taxa di ñaanal sëñ Chérif Mbacke musée bi nga xam ne moom lañ teg ci loxoom pour lépp loo xam ne moom la sëñ bi doon jëfandikoo ñu def ko musée bu ko defee ñu def tourisme religieux ñu dem ba Touba di ko di ko di ko ziar di ci di ci def lu am solo voilà ñu koy ñaanal mu réussir ci. Euh, dina dina sawar tontu ci ñaari question yëpp parce que dafa am loo xam ne mu ngi commencé am suñu réew te mu ngi ñu commencé jaaxal. ñun dañu woolu woon suñu justice ñun dañu amoon doolee nax suñu justice dañ leen a nawloo woon dafa amoon loo xam ne saa suñu ko doon def dañuy sóoraale ne nous avons une justice forte mais actuellement li ma gis nii man daf may tiital parce que buñ ne ay député la ñu woolu avant ñu leen di woolu dañ leen bëggoon def forcing pour yóbbu leen fekk leen ci seen liggéeyukaay taxañ leen yóbbu leen parce que neneen dañoo disparaître ñu résister ñu bàyyi leen ñu dem ñu xëy tey ñu déglu leen déglu nañ leen téye nañ leen man je ma pose la question dafa am loo xam dañ ñu ko doon xamal ñoom ñoo ñu doon wax immunité parlementaire ñoom ñoo ñu doon wax tout ça c'est le droit maintenant je me pose la question man au Sénégal lan la ñuy jàngal xale yi nga xam ne ñoom ñooy jàng droit parce que bu fekkee ne ak ak yeleefu doomu aadama bi da nga ko ko jox ba pare di ko nangu saa su la neexee loolu mën daf may tiital. et pour des raisons xeex amee ñëpp ko. flagrant délit amul immunité parlementaire waaw mais xam nga xam nga xeex bi am. il faut que tamit nit ñi bàyyi xel bu ñu def ci analyse c'est-à-dire c'est pas parce que kële jël na wex mais ki jël chaise fa yéene dóor doomu jàmbur. intention la am mais dañoo gis ni. mais carrément ki nga xamante ne moom moo dóor dóor bi moom la nit ñi gis moo dal donc euh, on peut dire. gis lu raw loolu yàgg na am assemblée te demeewul nii mais fi mu xewee mooy toujours nasaxal opposition. il faut que ñu bàyyi xel politique bi nga xam ne moom la nguur gi fi nekk nekkee c'est-à-dire nguur gi fi nekk li ko tax a jóg mooy lépp loo xam ne ci opposition la jóge lu bon la lu ñu war a condamner la bu fekkee ci ñoom la jóge dañ koy maslaa dañ koy jéem a xool nu ñu ko rafetale dañ ko sellale loolu moo dul réew réew amul parparloo il faut que lépp lu ñuy def ñu teg ko ci yoon sa à dire il faut que lépp lu ñuy def ñu ñu tëddee njaaxaanaay amul ku am ndey amul ku ma amul ndey mais encore une fois li ma gis nii ñu koy def opposition bi mu ngi raam di jëm foo xam ne dina indi résistance au Sénégal dem même que bu ñu jógee ci loolu lii nga xam ne moom moo xew nii ñu koy def Ousmane Sonko c'est-à-dire tey jii ñaari sénégalais ñooy ñoo am problème kii de ñoom dem nañ justice justice mu ngi leen di déglu am na ci loo xam ne andi nañ ko nee nañ dañuy yokk ay preuve mais am na ci loo xam ne ci ñoom ñaar rek la xew parce que cest bu fekkee ne dañ ne lii am na ay nit lii ba muy am gëj na ndaw si gëj na seq ak seq ak góor lu ni mel cest di dire yooyu tamit foog ñu ciy bàyyi xel waaye dafa am loo xam ne ci biir mbir mi dafa am ay raisons politique encore une fois ñun dañ ne position bi ci Abdourahmane Diouf am ak position bi ci Awalé am dañ ne lépp loo xam ne mu ngi xew ci réew mi ñu ngi toog di xool le président Ousmane ko bu fekkee ne moom yoon teg na ko loxo na doon loo xam ne dafa nekk lu mu moo tooñ mais bu fekkee ne tooñul ñu bëgg ko néewal doole ñun foofu la ñuy jógee soutenir ko en tant que opposant soutenir ko en tant que candidat candidat euh, présidentiel donc duñu ñu seetaan ñu nax saxal benn opposant du ñu seetaan ñuy def lu leen neex pour nekk fi di jaay doole di def lu leen neex loolu duñ ko nangul kenn encore une fois dañu la ñu waxoon la ñuy waxaat Ousmane Sonko en tant que sénégalais woo nañ ko na wuyu ji mais na ñu xam ne dossier bi bu amee une coloration politique nous tous nous sommes derrière lui pour soutenir ko parce que du ñu seetaan ñu néewal doole ku bokk ci opposition du ñu seetaan ñu def naka sur noonu ku bokk ci opposition. bu ko amee mais est-ce bi gis nga que ni am na coloration politique selon yow. waaw waaw li muy li muy wundu foofu la jëm parce que comme ni ko Pape Matar wax yi ñii ñuy déglu yëpp dafa am loo xam ne loolu lañ ci bëgg. c'est-à-dire mbir mi leer na bu yàgg. mais ñuy déglu si à la demande des avocats Sonko. mais mais effectivement parce que fi yëf yi yëri la. cest li ñu bëgg moom mooy teg ay ndëgg sërëx nax xelu sénégalais parce que sénégalais ñëpp màccuñ ci droit sénégalais ñëpp yeewuñ ci li ñu leen di wax te li ñu leen di wax c'est pas la vraie information li nga xam ne moo am ci dossier bi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq bu fekkee ne preuve yi wane na ne lii xew na mais au moins bu ñu demee ñu xool ko gynécologue bi xool ko mais dinañ ne kii ba mu gëjee seq jour temps la wala seq na ak nangam sangam mais loolu yëpp amul loolu yëpp c'est des preuves yoo xam ne wane na ne ki ñuy taqal nekkul ne moom moo def mais ñu ngi continuer ay poursuites effectivement nangu nañ loolu yëpp c'est la justice on respecte notre justice mais dañu ne fi ñuy alerter mooy lenn on n'acceptera jamais au Sénégal ku ñuy néewal doole opposant loolu moom c'est un point boo xam ne ñun ñëpp dañ ci mànkoo taxaw ci opposition bi dañ ci taxaw du ñu néewal doole benn opposant ñu koy seetaan et loolu lañ commencé gis ci dossier Adji Sarr alors euh, Issa euh, gis nañu dem euh, ba ba Amadou Ba lu premier ministre daal di def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale am opposition bi dañoo déposé li nga xam ne mooy motion de censure ba xam ne bureau de l'Assemblée sax wax nañ jugé nañ ko c'est recevable dañoo xam ni jeudi lay ñëwaat ci kanamu parlementaires yi pour defaat li nga xam ne mooy